asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñoo delloo nuyu waat leen gërëm leen sant leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a koy ànd ak QTV rawatina nag seen programme yi jigéen ngeen di si ànd seen doomi ndey Linguère ñuy gërëm ki nga xam ne nag mooy aji aadu leen nga xam ne nag moom leen fi amoon ak groupe am ni ki ajuma bee ñu génn doon waxtaanee nag lu jëm si wàllum aju màkk mu doonoon programme bu am solo te it ma yaakaar ne ñu bëri nag jàngoon leen balaa nag waxtu bii di jot rawatina ñi nga xam ne nag ñoo war a aj ñu leen di ñaanal yàlla rek ñu dem si jaama ñëw si jaama balaa ñoo gën a sori nag faaw ñoo gërëm yaamu sa bari foofu noonu sa ool yundum di nuyu aja ana Seck foofu noonu sa bakaw waaye ba tey ñu ngee nuyu kii nga xam ne nag mooy aji hadi seen nga xam ne nag moom it mu nga foofu noonu sa bakoote comme ni ma leen ko waxee woon rek si njëlbeen ñuy gërëm kii nga xam nag mooy MLC MLC nag comme ni ma leen ko waxee rek maa moom nag tàmbale neen di ñëw lii nga xam ne nag mooy uniforme uniforme yoo xam na nag ñu ngi ñaax réew mi képp koo xam ne daal bëgg nga ku la ñëwal uniforme comme ni ma ko waxee woon nag si last time bi ak uniforme bu munti doon rek mun nga ñëw call si 5866297 nomba bi nga xam ne nag mooy bu laamin bi di soo ko koolee di nga ko am di 5866297 wala nga call ma si 36 triple 5 41 36 555 41 ñu ñëwal leen uniforme yu rafet yoo wax ne nag di ngeen ko mun a sol mu jàppaleen lool bu loolu passé nag ñoo nuyu ñi nga xam ne nag ñoo nekk si biir kër gi ku si mel ni Nabou Ndour ak Ami Ndour Thiam ak ki nga xam ne nag mooy Mariama Diba Bojang ñoom nag dañ amee seen foundation boo xam ne nag dinañu wax naka la commencé lan moo tax foundation bi jóg ak li foundation bi di liggéey fii nii si biir réewi Gambia waaye nag balaa ñoo àgg sa waxtaan boobu noonu nag doo leen réeree mbir ne ni ki démba wax diggaane yàlla dafa amoon ab bés boo xam ne nag dañ koo jagle jagleloon ñi nga xam ne nag ñooy kilifa yi papa yi ak yaay ba tax na nag balaa ñoo dugg si foundation bi dinañ gën a ak waxtaan boobu noonu seet naka la ñoo mën a def du ñàkk suñ si paree rek dina am ñu ko mun a njëriñoo naka la ñoo mën a def bee boole njaboot bi ndax gis na ne léegi duñ duñ koy bàyyi di wax ndax loo xam ne la moo nekk di dox si jamono bi sëy yu gaaw a tasi ñu bëri nag ñu ngi see wax lu bëree bëri bëri tey rek si radio bi am na benn góor ku kool ne ma lingeer ma ne ko naam nee na ma ah liñ doon def si téléphone yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi sëy liñ doon def si téléphone yi suñ ko doon def si seen jëkkër yi sëy yi du gaaw a tas mu ne ma ndax téléphone yi sax ñu ngi koy aj si kaw dënn yi suñu doon teg si kaw denay yi ba set problème du am ni nekkee di fi nga fi nga mobile yi di ko fi nga fi nga suñ ko doon fi nga fi nga seen jëkkër yi sëy bi du tas neexut a dégg waaye dégg la nu ñuy def mobile yi nen ko def jëkkër yi jëkkër yi tam nu ñuy def mobile yi nen ko def jabar yi jàmm ne su ko defee ñu bàyyi kii nga xam ne nag mooy uh, Ami Mbuub Caam mu nuyoo ak jamono yi ñu koy seetaan Ami ñu ngi lay nuyu. ah maa ngi leen di fay li njëriñ salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Ah, maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant uh, waajuri di nuyu mboolem réewi Gambia. Mhm. di leen wax asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah su ko defee ñu bàyyi ki nga xam ne tam mooy Mariama Diba Bojang moom it mu nuyoo ñu koy seetaan. waaw asalaamualeykum wa rahmatulah wa salaam. mbemu be kontana min be Abidjan. mba euh, folale ko eh, linguer salamu aleykum warahmatullah euh, natana jang pour kana na foundation o toyala mhm. euh, wolen sijam bi alhamdulillah so waloon na kuma kaŋote folo mataŋaloo ja okay. bayiri mo kontondiro la banko moo bee kontoŋ mm -hmm. banko ñaatonkol alfaal ŋa moo bee kontoŋ itol di kontoŋ la baraka baake eh. su ko defee ñu dem si ki nga xam ne nag mooy Nabou moom it mu bàyyi ko ñu mu nuyoo Nabou Mboup ñu ngi lay bàyyi yow nga nuyoo auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi sama présidente Ami Mboup Thiam mhm. di nuyu waa fondation Al Ihsan yëpp di la nuyu yow mi invité ñu. di mhm. nuyu waa Gambia yëpp di nuyu képp ku toog di ñu seetaan rek. Mhm. maa ngi ñaan sama kàddu yal na la fekk si jaamu. amiin ci barke Nabi Mustafa. amiin yaa rabbi mbokk yi gannaaw bu gars yi nuyooyee ba nag dañoo gën a dugg si biir waxtaan bi comme ni ma leen ko waxee doon na ab bés boo xam ne nag dañ ko jaagleel kilifa yi ah mu doon ni ki démba. ñu ne nag baax na ñu xuus si wax dëgg yàlla seen naka la ñoo gën a mun a yaatalee programme bi jàppale eh, njaboot bi moo xam jëkkër ji la wala jaboot ji wala doom bi na dañoo bàyyi xel ne wax dëgg yàlla lii nga xam ne nag mooy séparation bu amee si diggante bi moo xam jëkkër ji dafa dee moo xam jëkkër ji dafa tukki moo xam sëy bi dafa tas mu nekkee nii kii nekkee nii wax dëgg yàlla am na lum dee def si famille bi ku sañoon tey sëy boo dugga doo ci génn waaye nag am na num dee demee wax diggaane yàlla sëy bi moom bu yàlla ne fii lay em fii lay em man dinaa koy faral di wax ne jigéen ñi ne ñuy muñ muñ mooy lépp bu la ko yàlla mun looyee muñal waaye muñuk mañak man ma ne bu ko benn jigéen def du ma bàyyi mukk di ko wax benn jigéen bu mu nangu muñuk mañak bu loolu passé comme nin ma ko waxee tey macha allah ñaar ñi nga xam ne den séparé wax di gaane yàlla wax neen ko waxaat ko tey problème si nga dee gis sa mu dee gën a am si mbedda bi police jàpp na kii sàcca jàpp na fii boo leen andi woon xale yooyu laaj leen ana sa yaay ana sa papa dangaa ñu ne la kii mu ngi carton kii mu ngi koy na ñu am yaakaar ne xëy bu doon ñoom ñëpp ñu ngi tuggee da ñuy always advice xale bi xëy na buy def lu bon tamit nu mu yàgg a yàgg wala nu munti mel dina am ñu ko gindi dina am ñu koy teg si yoon understand nga soo am naa yaakaar ne jamono bii ñu tollu ñun war ñoo def suñu kéemtalaay kàttan gis ne wax diggaane yàlla jàmm am na si njaboot bi ñuy toog di waxtaan ak ñoom dinaa koy faral di wax ne ñuy toog di waxtaan njaboot bi ak lun busy busy busy na ñuy ut ay bés yoo xam ne dañuy toog waxtaan ak njaboot bi su ko defee nag ñu bàyyi ki nga xam ne nag mooy ami mu sànni si kàddoom. waaw li ngeen tey indi nga topic bu am solo topic boo xamante ne nii bari na torop ci société bi. Mhm. ñi ko dunda bari nañ lool. waaw di wone ne rek am sëy moom jaamu yàlla la. Mhm. Ah, yàllaa ko santaane. te yàlla mi ko njëkk santaane dafa njëkk a sib tas moo ko santaane ba pare sib ko léegi ni ma ko gisee mooy bu yàlla defee tey jii nii alxayri jub yéen ñaar yàlla wala indi ci sëy boobu njaboot wala ture na xool yéen ñaar seen interest li ngeen war a xool rek mooy interest si xale yi mm-hmm. surtout bu ci njaboot juddu mm-hmm. muy digga mu nekk nag topic bu sensible boo xamante ni ni ah, dafaa nekk both side mm-hmm. léegi léegi dangay gis yaay boo xam ne pare na pour sëy pare na pour toog ah, am jëkkër boo xam ne moom faalewut loolu dafa am i tamit nag jëkkër boo xamante xëy na pare na pour téye am yaay boo xam ne tamit mooy loolu muy daal loo xamante ne nii daal na ku ci nekk rek ah, bàyyi xel li ma la rek mooy comme bu ci xale yi xase ba juddu rek nekkatut pour yéen ñaar mhm. li nga xam ne pour future xale yi la seen bénéfice la ak seen Um, stability pour ñu mun a toog because tas daf dee def benn impact ci xale yi loolu moom dëgg la bu bu wér mhm. waaye tamit nag ah mu ngi noonu léegi-léegi nga traya traya traya ba bugg a dee te fekk du wokk dëgg la so surtout nag ci jigéen ñi because man dama dee ne most of time jigéen bu xasee ba sëy na ba am fa doom mhm. wallahi du fa dee bugg a génna du fa dee bugg a mhm. waaye ñaareel ah li dee isi tas dafa bëri daf dee bari waaw mu ngi ah. ñun ñëpp daa war nañ ko moytu both side daa war nañ ko ah, moytu for ah, benefits of the kids mooy moo dee nekk laas laas laas lu nit war a mën a def sax sëy mhm. sëy bu tas moom moo nekk li nga xam ne moom la nit war a mujjee eh, eh, war a gën a xalaat waaye bu demee bay am rek kon xamal ne am na lu fa nekk waaye ngelaw bu amee mhm. njaboot bi nga xam ne nag moom la leen yàlla dénk mhm. ñu ngi leen di ñaan def leen seen kéemtalaay kàttan bu yaay aaye buy gis doom bàyyi di gis doom bu bàyyi aaye yaay di gis doom loolu waree fi xale bi la muy toog ak papaam naam sax sëy ba tas na sax wala sax papa bi tukki na sax wala sax papa bi faatu na boobu moom ku faatu ba wax di gànne xel wan ko understand ne dafa génn àdduna mhm. waaye yaa ngi bitim réew wala yaa ngi si biir réew mi saxantuma sax yaa ngi si biir réew mi ma bëgg a gis ma doom nga ma koy tere wax di gànne xel du dégg du yoon sëy su xasee ba tas minu ne xale yi dañu war a tasaaroo mi nu ne xale yi dañu war a ñàkk di gis seen kilifa yi moo xam si sayti papa bi la moo xam si sayti eh, eh, yaay bi la Gambia nag am nañ jikko boo xam ne xaw ma kañ leen koy bàyyi dañuy fase yaay fase doom dañuy fase yaay fase doom te defe naa nag loolu boo ko defee si xale bi wax diggaa yàlla lor nga ko ndax fu mu toogee moom kenn dafay wéet te dafay ñee saa su nekk moromi eh, moromam yi secondairement suy dem si kër boo xam ne dañuy faral di fo muy gis ne saay bu nekk xale boobu mu ngi ak papaam wala xale boobu mu ngi ak yaayam mu wax ko waxu ko am na loo xam ne manqué na ci moom kon nag bu doom demee ba bugg a wax la ah, ba dem wax la ne yaay dama bugg a dem seeti baay ngir yàlla bu ko ko aaye li ma sa baay def kooku kay bul ko seeti toogal loolu du sa wax understand nga su ko defee defe naa ñu seetaat ko bu baax a baax <laughs> boo jël ah, ma ne développé day da nga indi topic bu doy waar. Ah, dama doy waar dama yéeme. <laughs> topic bu doy waar ci nga nekk ni mm. ah, ah, Linguère. waaye nag ah nañ ci xuus ba ci kanam. waaw ñu seet nu ñu mën di demee ñoo jox. <laughs> ah kay bi ko sax bés boo xam ne la dañ koo jagleel kilifa yi. dëgg la te kilifa yi ñoom rek wax dëgg neex yàlla. problème bi yëpp si ñun la ñun la problème yi dee commencé balaa doom yi di ñëw baax na ñun tamit ñu seet suñu bopp bu baax a baax balaa ñoo invite doom yi comme dañ ko jagleel bés boo xam ne si kilifa yi te mu xappun mm-hmm. démba rek mm-hmm. defe naa kon jigéen am na si wàllaam lool xam nga loolu ñaareel soo ko gisee dafa def si tasin bi si tasin bi waaw si tasin bi. waaw xam nga léegi léegi jigéen moom ñëpp xam nañ ne buñ meree rek dañoo reyaat. waaw loolu moom dëgg la te tamit dafa des tam si mm, how long la jigéen bi muñ. ak lum jël yëpp tamit. Ah, xam nga loolu tam daf ci dee kaaw. dëgg la xam nga man moo tax ma ne jigéen nañuy muñ. waaw waaye muñu ma ñàkk jigéen bu mu koy nangu because bu ñu lay dóor di la saaga di la teree dépense di la xam nga wax lu la naxari boobu moom su boobaa rek dugg nga si cadre muñu ma ñàkk waaw mu ñu ma ñagam fii wala léegi-léegi nga muñal góor ah ba things yëpp ok mu seet leneen mu seet leneen wala mu tukki fàtte la xam nga <laughs> dafa bëri ay yoo xam ne daf mm-hmm. dee nit tam nit rek nga mun a doon faral lu ma jigéen ñi loolu lu ñaaw la parce que xale yi ñoom seen yoon nekku ci ñoom innocent ñoom lu mun a xew da ngeen leen war a bàyyi ñu partager both parents yi waaye léegi-léegi tamit góor ñi si ñi ma ko sañ a wax tamit mhm. dañ dee defee noo xamante ne nii daf dee xaw a doy waar trop mhm. xam nga euh, bàyyi jigéen bàyyee ko xale yi mooy fase la fase muy struggle ak xale yi mhm. ba xale yi mag nga bëgg a ñëw xam nga loolu léegi-léegi tam waaye tam na yi nañuy sóoraale leen gis nga loolu liggéeyul si doom doo ko am si doom voilà xale bi tam loolu liggéeyul si doom doo ko am si doom soo bëggee doom defar la jàppale la yërëm la ba muy xale mais nga da nga séparé ak yaayam sa defar li la war waaw ba pare yërëmal yaayam parce que yaay dafa foor yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne yaay yaay yaay ba moo ñetti yoon soo diggante yaay ak doom dafa nekk ah, loo xam ne mhm. ñaareel euh, boo toppatoowut yaay rek bu xale yi magee ninga nga sa diggante ñoom mel du ko mun a mel parce que boo xoolee ne nine months bi mu ëmba doomam ulbati mhm. ko amee ko two years ci di ko nampal mhm. boo xoolee ne veine bi nekk ci xol bi moo connect ci ci ween wi yaay dafa nekk lu foor loo xamante ne ni xataa tas ngeen sax maslaa yàlla yaay bi maslaa leen su koy xale suñ magee mhm. dinañ mën a am tuuti cofee loolu du affaire nit ki ak nit ki loolu yàlla la yàlla moo def si diggante yaay ak doom mhm. dégg sëy papa ñu yaroo suñ doon papay mhm. ak suñ yaay ñu sëy ba mag waaye still sa yaay sa pa yaa ngi xam ba mag boo amee mosuri time dangaa li ngay gën a considérer sa yaay doo ko dee def sa pa loolu lu yàlla def la ah, so man li ma dee gis rek mooy du ma bileem góor ñi bem jeex waaye li ci ëppa ci kees yi ci ñoom la dee nekk so jigéen soo ko amee da nga koo yërëm ku la jural doom kooku mm. mënuloo ko fay doom dafa risque ñaata nit ay am doom dee dëgg la bari na ah, soo nit ki du ma meen jël nga ko rek jëlal sa responsabilité à sa góor bu yàlla demee ba tas sëy bi yàlla tas na ko parce que mm. xëy na yàllaa ne foog mu tas nga dem feneen a feneen dëgg la waaye jëlal sa responsabilité à sa maan mm-hmm. góor dafaa yërëm jigéen loolu la yàlla wax ci alxuraan yërëm leen jigéen ñi dëgg la so man kees bi bu demee rek mhm. du ma jaam fa góor ñi ba mu jeex mhm. waaye nag damaa nekk ci saytu jigéen ñi ah, parce que nag jigéen ñi dañ dee muñ nekk di sofa dañ dee muñ te dañ dee sonn ci seen doom yi tamit solo soo dégg neexut dëgg la <laughs> koo koy ami mbuub ñu koy gërëm bu baax a baax su ko defee ite fana ngeebu la yela kango fo waato ah, ah, waato nka fole na madin ko buka senia waati do aseke ni nka fo mo safo ngeer wo na pareta dorong poliso wole be na kamala <laughs> bari nga am rek ɓe mbarale sa ye mun kumale soto pour ka fo eh, futul mun ya lon ko ika ban junale andu na banta fran aka mun ke dindungot Uh, mhm. ah, ah, futuwol mini ka ban juna hmm? nsa fonta fanga experience soto je ka tonta mhm. fana nimbama nfama nimbama la futuwo banta juna wato mbe doyare bara ninna broda la konwol tata mhm. sonta ba suba kono so nga experience jama soto jele mm -hmm. korra balo mm -hmm. jele fan okay. nan na futu dulato nin kan mhm. nga ta nga jiyo bi nga min nga si folo nga tenku mm -hmm. wato dol kari athlete bar nin kan fata kan ni nga wo fenke ni nga hakilo muronde ko ma dron ka fala ah nga alamuta ha nga nga nga dimbal jibe kaatu bi ni inin ke fututa fo dingol soto inin ke talata mobuka musubuka duwa de ni inin ke talata mhm. ida inin dingole ta walla dingol tuje ibe tarra sirin jana le ibe kumbola i ñaabe dingol la ibe kumbola ite ite ite mhm. kuno la je so wala na aka koliya bakel wato dol musol la karo la mhm. muso nin ke futu sanji jelu ala na alal ka futo dada atele ka futo fanan ban katum wato dole ka fo musol bu kasabar bar musol kasabar musol kasabar re eh, kel kasabar de bare a sabaro kuma ba bebe musol la karola katum mino musol kamine jibe ndingo oh, nin tata ningan kodi ni tata ye kodi fo koma fele mhm, ke walwo so doron do yena ama ha ah, ama yisi pour ye <laughs> dingo tukko e eh, eh, kono ye fundi i n'a e ye bɛn siloo kan i ye diŋo ji ɲaadoo ɲaama mm-hmm. i t'a fo la moo ye bari i be tara kunbo le sondomo kono mm-hmm. so wuloo koleyata wo yela wuloo dimita wo le ye diŋo tu wo ɲaama mm-hmm. wala na musu jamaɓe fa kaŋila futu bundato so kel fana ye bala fa soto musol ye musol fana ye bala fa soto ye kel ye mhm. ni ye ke i ko ke konsulata ñinna ko ye ma soto mhm. a longa fiye ka ma soto bari ite ke fana ni muso ye dani feŋo la a bee bulu kana fa ye ko ma soto a diyala i e sembo ye min no a fa a mbulo ni ñinne ka ñanta ka a fele e fana ye wo mhm. manage i e b'a jala ko futu kono be diya la le i malon dimbal fanang ibajela kalbi ibebe taranyola eh, tugedale mm -hmm. ibajela ko separation o tekela so sa dimbal ibe control no nyadil nalbe nyoka to nyalem muso sa dingol mhm. ko mandino na ni e kacha mm -hmm. a tandilo ko ni nyinke aman betia mm -hmm. ni man nyinke wole betiata mm -hmm. yo fa fana ni wati bota asa dingol kumanda e sindi mm -hmm. alalba ma mutade al suu kononkol muta de alketenting alketenting wo dingol wo nin dindol buka mulya comme mhm. ni ke dingo advice watu wati naka si naka kacal watu dola ka tulum fa i ka jele dindongo kujama ka bonda a kun kono mm -hmm. bari ni dindongo tuje nanata i wura kan mm -hmm. walla nanata i ka mhm. nkoye funti jana mhm. a dindongo comme ni a naata dong a ka na dunta sookondo a ka sambi ɓen bayla so ni a bayi na fundita a ka taa min banta ite maalong ite ɓe sookono ni naata report to fo ye ko he kaariwol man lafen diŋo la a tara wolle lafite diŋo la kaatu kunun ntol yentol kulu ñamin ni ntol ŋa kuriya ke banta modole kantol buute min ntol ba fa ni a fo sookone ka a lafa la kote bari bi man tara wo society kono bi ni ye moodiŋol lipa ye a je a lipa i ka fala nga police mhm. sa i ye a mira jamal be jama diŋo kulu la jamala ba dadala no ñiŋ naŋ mhm. na dindiŋol tiñata society kono kuluro le dasata mhm. aniŋ sa ni lafita ka moo diŋo kulu i ka le mee be ndiŋo kulu bulo kono kana a jibe a ñiŋ maa a ye a je kuu so a ñanta tilindi la siloo la pour sooma sooma hana a a kela fo he wolunga nyinkele de karile in malong alfa karile taranu nyina en lipa mm-hmm. Mm-hmm. so iba e jira ko walla hani ma lipa mm-hmm. akuma ni ya dia munde ni ya advice ya fa ko e yin minke tentinga mon betiya kana ke hadama dum buka maten so ma ba hakilo tulala ta sifa kela matuga danjam abaraka gesel yata bake <laughs> machallah li na solo lool comme boo xam ko jagleel ñi nga xam ne naka ñooy kilifa yi kilifa yi yow mi nga xam bëgg naa nga laaj sa bopp ndax yow yaa ngi def sa warugar si ki nga xam ne naka mooy sa doom bi boo xam ne dangaa xëy suba 7 o'clock nga génn kër boo dugatee rek beneen 7 o'clock moo tega ndax yow yaa ngi laaj sa boppa naka nga nekk di yaree sa doom bi ni nga xam ne noonu la ko buggee noonu nga ko buggee wax dëggaane yàlla ñëpp xam nañ ne jot amul waaye nag ak lu ñuy ñàkk a ñàkk jot war nañoo mun a créer time ak suñu njaboot moo xam papa bi la moo xam yaay bi la defe naa ak ñuy ñàkk a ñàkk jot neen def suñ kéemtalaay kàttan def si njaboot bi ndax ëllëg si biir njaboot bi mun a def si ñun mhm. su ko defee nag ñu bàyyi kii nga xam ne nag mooy Nabou Mboup moom it mu sànni kàddu si li ñuy waxtaanee tey lu jëm si wàllum njaboot bi Linguère tey da indi topic bu am solo mhm. fi nga laal dafa sensible muy affaire divorce ah, sëy yu tas yi dafa bëri torop mhm. euh, te li koy waral en général mooy sunu papa yi ni ñu jàppee woon sunu yaay góoru tey jàppeetuñ ko seen jabar yi góoru tey ci boppam ñoo téyeetul jigéen ñi sëy jigéen ñi ñoo ko téye sonn lool fajar lañuy ñuy xëy bu njëkk ba dañ daan wax naan jigéen da nga war a toog ci kër gere njaboot gi ah, léegi jigéen ñi ñooy xëy di dem di uti ji mhm. di indil njaboot gi góor ñi na yàcc di def nag lu leen neex mhm. xool du oom bañ koy bës da ngay bokk di liggéey di toppatoo sa njaboot jël sëy bi yëpp téye ko di ko sey mhm. sëy ma defe ne pour ñaaru nit la góor bi dafa war a jàppale jigéen bi jigéen bi jàppale góor bi ngeen jàppalante sëy bi mën a neex mais léegi sëyu tey mhm. kenn koy def muy jabar bi jigéen ñi tey seen bés la mhm. dañ leen di sargal ndax jigéen ñi dañu nekk ay sëykat mën a muñ lool di toppatoo njaboot gi di def lépp ci biir kër gi góor ñi nañ ñu yërëm te xam ne jigéen amul doole bu jigéen matoon mm. buñ lay muur mm. duñ ne la boo demee nga muñ muur la guddi yóbbu la ne la muña te sëy jigéen dafa matul moo tax ñu koy defal lool dëgg la kon ana góor ña daan muñal jigéen góor ña daan muñal jigéen laa gisatul léegi sunu papa yi nañ téye woon sunu yaay yi mhm. man tey gisatuma ko ci biir kër yi ah, lii moo waral divorce yu bari yi di am te sëy yi bu tasee mm. xale yi la ñuy lor mhm. nga nekk ak sa yaay gisoo sa papa mhm. doom bu sañoon day nekk ak yaayam nekk ak papaam loolu dafa neex nga dem jàngi ji wàcc fekk sa yaay ak sa pàpp ci benn kër ah, loolu dafa neex mm-hmm. Mm-hmm. mais nga ñëw fekk benn parent bi kese gisoo keneen ki su fekkee euh, jëkkër ja dafa am beneen jabar mm-hmm. xamoo kooku nu muy traité xale bi mi yaay bi tas dem du ko neex ndax mu ngi xalaat doomam lan lay dund ci ginnaaw sëy yi daal war nañ ko téye tey muñ te yàlla tax ndax defe naa sëy bu demee ba tollu fenn fi léegi muñ rek moo fa des muñal rek muñal sa njaboot. Mhm. mais des fois tamit. Mhm. da ngay muñ muñ muñ a muñ ba sës. ba dugg si ma muñ voilà te boo sësee rek. Mhm. dootoo mënati dem mieux vaut ko sax nga nga bàyyi. mooy gën ci xale yi. ah kay ah kay mooy muñu muñ bi rek. parce bu dee yow yaa ngi sofa si biir sëy boobu noonu. te mu óor la pegg ne mënatuloo muñ. ngir yàlla pour jàmm am. na ki jaar nii kii jaar nii parce que nit ñi wéruñ sax war a dem lopitaan. ñu naan gisul benn feebar. nga delluwaat si da am feebar mu ngi noonu xew ba pare tam nee na moo xew yaay moo gën du a ne astafurlah du ma ne moo gën a waaye yaay tey li mun ci njaboot gi mm-hmm. fekkul papa mm-hmm. mu tey jii nag buñ la joxee xaat ataa fi wala kaat yaa nga toppa di muñ ba balaa xale yi ma nga dee xam nga loolu tamit yàlla waxu ko <laughs> <laughs> yàlla waxu loolu di su ko defee ñuy jaar nii Edo xam naa ne nag xamewuloo de ah Edo xamewul de. ah wéy di mën nga dee. non ah nga mot saa si bi la. boo da problème bi si jigéen ñi la moo ah, nekk des fois mu nekk si góor so ah góor yi la si góor yi la majorité <laughs> ah, su defaru sa xama góor boo xam ne sonuloo sa doom. waaw du la musal yére. xale buy gis buy gis yaay xale góor tuur muy gisee loolu daf di am benn een bu dee nekk si moom su magee xam nga moo tax fa gars yi di ko bàyyi xel man daal maa ngi ci jigéen ñi parce que li maa wax ni lu leer la te xam naa fi ma ko teg soo yow tey ñi nga oo sa xamuloo amu ma a nag a <laughs> suñ del si waatee continuer programme yi jigéen ma xoolee ba ca biir gis naa jigéen ñi réew mi ñi di jàmbaar Looking for the perfect place to promote your product or place your advert? Look no further than QTV. We are the premier destination for businesses looking to connect with Gambian audiences At QTV, we offer a variety of advertising solutions to suit your needs and budget. With our diverse range of programming, you can be sure that your ad will reach a broad and engaged audience. From our popular news our exciting music and entertainment programming, QTV has something for everyone. QTV, the premier destination for advertising in the Gambia. Contact us today and let us help you with your audience. waaw léegi ñu dem si ñaari pàcc bi ñu dem si ñaari pàcc bi su ko defee nag ñu continuer programme jigéen fii si mm. QTV macha allah su ko defee nag right now dañoo dem seconde part bi <laughs> su ko defee ami <laughs> ah. ñu laaj la rek ah, seen mbootaay bi wala foundation bi naka ngeen ko tuddee al insan foundation ba lu muy firi al insan mooy doomi aadama ah. xam nga tey yàlla lépp lu mu binda doomi aadama ko ci gënal doomi aadama la gën a fonka te tam fi nga mën a liggéey liggéeyale yàlla rek mooy ci jaamam ñi dëgg waaw moo tax ñu tuddee ko al insaan muy firndeen ni yàlla fonkee doomi aadama ak euh, lii moo tax ñun tamit wax dëgg mhm. yàlla ñu taxawal ko li indi al insaan nag mhm. dama nekkoon Amérique for decades léegi bi ma fa nekkee su ma weetaan mhm. dama daan riid di Quran mm. so su ma ko rek damaa gis page boo toon rek yàllaa ngi wax ne dimbale leen dimbale leen fidal leen ma suma faxiir yi mhm. fidal leen ma suma jirim mhm. mu nekkoon loo xam ne nag dafa defoon benn impact ci man daal di ne suma jëkkër man de lii mhm. saa yu nekk rek dama ko di yër waaye daal dafa am benn feeling bu mu yëg yëg bu mu def si man mu ne ma lu mel naka ma ne ko bugg a jàppalante jaami yàlla de moom bugga naa ko mu ne ma ah, loolu day lu baax la amiin boobu nag maa nga fale ma dal di yóone ñu ut fi benn laan bu mag bu nekk gannaaw biir kaama mu nekk hundred by hundred ñu amee ko pour ëllëg allah ñu mm-hmm. tabax fa daara ah def fa jumaa loolu mooy suñu intention ñu ñaan yàlla yombalal ñu ko ah, léegi ma dal di yónnee nag ñu jëndal ñu ay sijeer yu bari moo tan fifteen sijeer mm-hmm. so ma dal di ñëw léegi bi ma ñëwee was last yet démb laa fi am one year léegi bi ma ñëwee ñu dal di taxaw nag taxawal foundation bi ni ma ko taxawalee mooy mm-hmm. dama daan dem xool kafoo jigéen ñi Euh, tontine yi ma dem fa su ma demee introduce leen suma boppa dali leen wax ne lii de laa bëgg a taxawal mu doon loo xam ne ndimbal laa nekka mhm. nga xam ne every month dañoo teg lu waay am rek nga saani mhm. léegi boo defee dañ daan rey nag buñ reyaan nag yi dañ leen dee tooga mu ngi ci videos yi YouTube Facebook fu nekk mu fa so dañ dee tooga duñ toogee mhm. ñu yóbbu ci lopitaan yi yóbbu ci daara yi alxuraan yi dal di yóbbu tamit ci beega si street bi waaw noonu lañ ko defee di ko di ko def ba léegi nag dañ far am membership card da nga am pour bokk as a member boo bokkee every month membership bi 200 la pour card bi léegi every month da ngaa fay 200 mhm. so noonu lañ ko defee pour mu grow foundation bi euh, bi ngeen ko taxawalee ak léegi am na ñaata at am na six months because ñu ngi ko start on November am uh, seven to eight months. ok November twenty fifth. ok last year lañ ko startoon. commencé waaw am na solo. Ah, ni saafo no mandinka kongo ya moy aya ah, alla foundation oto mo nya nyaadire eh, te aliyadati munduma munay o oh, saabu fanan aliye doko munke bidin aliye nyim foundation odati awju billahi mina shaitan rajim bismillahi rahmani rahim mhm. lingar comme anti ami a fañami mhm. foundation oñe ɓerin commencé aninsaintemaamra kari kari worowla kata karse okay. kato sanji kilin mansi folo okay. yo bare birin uh, eh, kafoñi ya londi anata tandina komba kafoñin tolala al insan ner mhm. yo wo al insan kono nata ñinin ka minomala uh, eh, Minino. hala mininoti ako comme ala suratun mariam mm -hmm. abijele ka tandi ko ala ya tandi ko comme eh, ka miskinol makoye mm -hmm. ka mol makoye mhm. so wol nata wo al insan tofiyena nata fay ko abetiyata sai nata anata diamunte nata diamna kafu mole mm -hmm. so nata together afu kafu mole in ntoro influence de nka tegola so ninga tegola eh, kafo eh, foundation ota nga wo bondi nga sama so sai nin karo fata mm la last friday okay. nkatala nga tabiro ke nga samba daral to nga samba loptano to ani sada daneral min ka uh, eh, sisilo kan mhm. a tata fo ntol faŋo ka fudiŋol membasol min bi je ah. ntol faŋa faŋo je kuwol kono la mm kaatu ñiŋ ye ñine tandi ko niŋ be moolu maakoy la banta mm fanaŋ faŋo ndammaal faŋo kono nse ñoo maakoy noo la kaatu ye a loŋ moolu soto buloolu keeñaa maŋ kiliya hmm. yo wo kono Uh, ah, alhamdulillahi rabbil alamin okay. nga jeje ha okay. duwala fanan fo ñaato ta fo ala sa ka fo andum bare nya be mbulo fayla fanan kan mbulo la mole ke dani fo isem fanan sotono mm mo kilin buka ku mo tang buka ku keno par mo siata Mhm. nin bulo fanan bundal fanan bulo siyata mm -hmm. i b'a jela kon se ku jama keno le mm -hmm. asa keno ate danna gambia jandan ma ah, so mbo wo dani kam mol bulo kono gambia alfa ali min bi jan mm -hmm. ani ñatonkol ani banko banko alifa mhm. mbe ña daniro kela mobe bulo kono momo manjutu fenna mhm. ni transo soto yaadi sadalom to ñala ah. o ge sen yata su ko na nabo yow ñu bàyyi la nga wax ñu naka nga def ba dugg si mbootaay bi rakku Ami Mboup laa. ok maa ngi nabu Nabou Mboup. Mhm. Mhm. fondation bi nekk euh, fondation bu mag boo xamante ne. Mhm. comme tey si bésu jigéen ñi rek la ñuy wax. Ah, fondation bi jigéen na ko taxawal. dëgg la muy Ami Mboup Thiam. ba mu demee Amérique liggéey ba yàlla dimbale ko dafa ku réewam ne damay dellu sama réew. pour dimbale sama doomu réew. ndax ku nekk xam na ne àddina bi dafa metti dund bi dafa cher. moom mu ñëw di ci def participation gis nga every month su la koy def mhm. ndax fondation yu bëri dañ koy def par koor euh, nu mu tudd weeru koor weeru ba weeru koor ah, ah, nga gis nii di def chaque année année mhm. ba année mhm. mais moom chaque fin di mois weer bu dee bu nekk day jënd dund gu bari ceeb yu bari lay jënd jënd ay diwlin jënd soble pombiteer lu nekk mhm. di wër daara yi mm. ndax xam na ne daara alxuraan yi ah, xale yi ñi am na waajur yoo xam ne ñi ngi jël seeni doom yóbbu leen ci daara yi mhm. keroog bañ leen yóbboo dañ leen gëj a fayal dëgg la borom daara bi du la dàq mhm. ndax dafa woote yàlla ah, ndax kii def te yàlla tax yow sa doom boo ko fa tegee te fayaloo ko koo dàq dëgg la te pourtant dina ko jox ndékk jox ah, ko añ jox des fois du ko am day lijjanti di débrouiller pour jox ko xale bi ami mbuub ñëw taxaw pour jàppale daara yooyu. taxaw pour jàppale kër yi ji comme jigéen li ma wax sànq rek. si mm-hmm. jigéen coono gi jigéen nekkee. waaw jigéen ñu sonn te nekk ci biir kër yi. Mm-hmm. buñ demee ci daara yi jox leen seeni dund ba pare dañuy wër kër yi nag. Mm-hmm. di jox kër gu nekk dinañ fa dugal ceeb saako maalo. dugal fa diwlin. dimbalee ko jigéen ñi. dimbalee ko borom kër yi mm-hmm. ndax jigéen ñi dañoo sonn seen moromu jigéen nag moo yëg boobu dëgg la jël alalam mm-hmm. di def te yàlla rek tax am na solo kon xam nga kii euh, yayoo na ku ko jàppale dëgg la ak ñaan am na solo yal yàlla dimbale amiin yàlla bi amiin yàlla bi yal yàlla jàppale su ko defee am yi nga wàññi ña yéen ñaata nekk si mbootaay bi foundation bi day biñ ko taxawalee su ma juumutee fi mu nekk dem na hundred plus waaw dem na hundred plus parce que am fi mu nekk nii before mhm. dama defoon like weekly lu waay am rek nga nga joxe ko léegi dañ dem be dañ ko def am membership card léegi na membership card bi da nga am pour bokka boo bokkee every month da ngaa joxe 200 as du moment member nga rek every month da ngaa joxe 200 so léegi noonu lañ ko defee fi mu nekk nag ñun ñooy kind na limit a little bit because the reason why dañoo def comme like monthly dañoo jox nit ñi maalo diwlin mm-hmm. dañoo dimbali outside waaye tam charity begins at home ah, because most of ñi nga xam ne ñu ngi ci biir foundation bi sax ñoom tam de ñu ko niit mm-hmm. so léegi niñ dee def mooy dañ dee wane képp koo xamante ne nii every month dañoo génne wante balaa ñoo génne yow képp koo xam ne da nga soxla si ñoo génne ñu boole la ci léegi da ñoo jël ci suuf mm-hmm. wallahi buñ sañoon képp ku si bokka every month ni ñoo génnee di joxe ci biti noonu lañ laa joxe waaye xam nga nag kenn mënul lépp kenn mënul lépp mhm. yàlla mi ko mun sax def joxut ñëpp ah, soo léegi moo tax ñuy def noonu mhm. soo képp koo xam ne yow duga nga rek nga bokk si foundation bi as a member every month da ngaa joxe 200 léegi nag boo joxe 200 tamit soo nii dee dang ñoo wax ne ñoo da ngaa jël ci suuf ne ami ñun kat moon bi soo leen di génn soxla nañ parce que ñun moon bu nekk dañoo génn dem joxi daaray dem joxi néew di doole yi nga xam ne dañ soxla mhm. soo dañ dee dem jox ñooñu waaye tamit si biir foundation bi lañ dee njëkkee tam ku bugg ku bugga tamit dañ laa ñëw ñu jox la. am na solo waaw noonu la deme wax dëgg yàlla nit ñee koo interest. nit ñee ci interest sin waaye amaguñ nag benn sponsors. ok dina ñëw si mbiri sponsor yi. Mhm. waaye itam bëgg naa la ci comme ab foundation boo xam ne man dama ne bu dee ëpp na juróomi nit wala fukki nit rek. Mhm. war na mën a def dara. Mhm. Euh, loo xam ne dina leen indil income. understand nga comme. yéen every month ngeen teg exemple two two hundred dalasis mm-hmm. ndax mus ngaa waxtaana sa gars yi gannaaw two hundred dalasis bi ñoo teg mm-hmm. ñun léegi lan leen mën a jàppale suñu bopp xam ne dañ koy defar mm-hmm. ku nekk ñu jox la nga am loo ko foo ko dem jaayee ji ndax daal da ngeen toog rek every month ku nekk dugal ngeen ji di bagage amu dara loo leen di create wax nga lu am solo. Hmm. Euh, loolu tamit mu ci plan si. pour ñu créer loo xam ne bi ko two hundred yooyu. faju dara waaw bëri na bëriwul. bëriwul sax. Hmm. because boo xoolee ne two hundred du ñëpp ko dee teg sax. Euh, ñeneen ñi dañoo teg ñeneen ñi duñ ko teg. always noonu la dee demee waaw moom starting bi ñëpp di leen teg waaye bu demee ay weer. waaw waaw ba yoo yow doo xoolee two hundred bi saaku maalo bi ñoo joxe. Hmm. saaku maalo ñëpp xam nañu ay one thousand seven. from time dama dem one nine. xam nga boobu noonu ko boobu dara. mbiri mbiri yàlla moo ko doxalal ah, boppam dëgg la dëgg la waaw mbiri yàlla yàlla ko mhm. dina ñu plan tamit pour def dara because li ma wax nii am na benn journaliste comme ça ku nekkoon Sénégal ku ñëw faama mhm. ma ko nuyu moom tam waxoon na ma ko ne ma ami doo créer loo xam ne gars yi a <coughs> di jaay ko defar mhm. ah ngeen mun koo nekk di jaay nga xam ne dina mën a indi moo income but we will think about it parce que tamit Euh, fii pour nga gaadal nit ñi. Mhm. ñu sérieux ci dara. daf dee xaw a jafe problème la daf dee xaw a jafe. Mhm. da nga wax lii ñu ne waaw ba moom daal muy ngi noonu dinañ work on that. ah kay because dañ mhm. toll si jamono boo xam ne ki nga bokkal ndey ak baay sax pour nga dimbale ko dafay jafe. dafa métti. ki nga bokkal ndey ak baay dama ne. pour nga dimbale ko sax day jafe. jigéen tas na fi sëyam am mbokka boo xam ne raka wala mag bu ko mun a jàppale am mhm. xaalis mhm. mu bàyyi ko ak njabootam di ko seetaan dëgg so da ngaa si den tollu jamono bi pour nit ñi dimbale mhm. am na nag benn benn yuy dimbale comme yow li nga def ni waaye na jafe na lool yow tey boo sañoon am keneen ku ñëw bokk si ndimbal bi nga xam ne yaa ngi koy def waaye nag xam naa ne bu doon ambiance la mhm. di gaaw am ku lay jàppale waaw nit ñi moom mhm. bu doon ambiance la nit ñi di def lu leen neex di nga mhm. gaaw a am ñu lay jàppale waaye ñëw leen si yooni yàlla nii dinay jafe lool pour nga am ñu lay jàppale wallaahi waxati ko ah, lu jafe la jafe la di laayit nañ la raayit nañ si binda euh, fu nekk ngay dugg da ngaa doog ba sa poti daal lay génn kenn du la tontu euh, da nga leen ko jox sa ñu ne waaw we get back with you wante comme li ma rek ne leen ne man lii mhm. euh, xaaruma ci sax nag ñu bari parce que itam loo xam ne la man Amérique suma jëkkëram fa ak suma ay doom mhm. ma bàyyi leen fa ñu xëy na yàlla lii la ma teg pour ma def ko soo muy loo xam ne nag jaral na ma lu nekk parce que defaluma ko nit mm. suñ borom moo santaane ñuy def man foofu laa di wax gars every day mm. na bu mii ak keneen ko amila mee la xoolal bu doon nit a santaane sax nga mun a daawut waaye suñ borom moo ko wax ñaata nit a jàng alxuraan mm-hmm. dama riit rek xaw ma li ma ko def lu ma ko fiilloo kon loo xam ne la incha allah mooy même buy benn saaku maala sax buñ ko daaje di ko tasaare dinañ try def loolu ah, ku ñu ci fekk tam ñu jël mënuloo mm-hmm. forcer nit ñi ne leen kaay leen def li nga wax bu fekkoon tey jii nii dama ne woon weer bu jot ma oote sabar ak yu neex waaw bu soobee yàlla dina dina dina dina bari enveloppe mm-hmm. waaye nag <laughs> yàlla mi tax nag ñuy def. moom it dina ñëw mm-hmm. moom dina la bàyyi nga dem ba ca kanam. ba mu li nga def lu déggu ci moom. dëgg la te wallaahi dina ñëw. incha allah dina ñëw. soo loolu la rek parce que bàyyiwut ñu tamit. dëgg la ñu weer wu jot wallaahi ni moo ñëwee sax. bi ngeen ko mun a def bem rafet sa doo leen ko dee mun a xam la yàlla mel noonu so moo tax na man <laughs> du ma ci dellu gannaaw incha allah lu dool nii te rafetal ay ni maa moom la ba fu mu em te incha allah gëm nañ ne ci ko ci kanam rek. am na solo am Nabou foo nga ne rafetul tamit nit koo gis ne mu ngi def euh, euh, comme li Amie def wala keneen ku mel ni moom lu muy def nga am sa alal am tuuti loo si mun a génne rek pour jokko mu yokkande ko ko dimbale jaami yàlla yi. mais loolooy bëgg sa réew. soo bëggee sa réew soo gisee sa doomu réew ñëw. di jàpp si développement. sa réew jóge ba Amérique ak ni Amérique neexee sax nag. mu waroon faa mën a toog di xale liggéey mu bàyyi fa lépp ñëw pour jàppale réewam kon ñi ne ci réew mi te yor dañoo war a ñëw jàppale ko ndax mu jàppale new ji doole ji mhm. loolu mooy dëgg boo bëggee bu lii man buñ ne jàppale ami mhm. boobu du ma koy bëgg a dégg <laughs> ndax man jàppalewuñu ma seen bopp la ñu jàppale mm-hmm. dëgg la tiyaabo la mm-hmm. tey loo ci def rek sa bopp mm-hmm. man bindaluñ ma la man li maa def loolu man lañ koo bindal ci keneen di def loolu kooku lañ koo bindal la soo man noonu laa leen ko de waxee mais leen ne xataa bu ñëpp bàyyi woon sax man dama ko mun dama def man la li ma de wax na bu bor bu seen ndeysaan su ma rakala bu baax bu xeer ci man su xeer ma ne ko na bu man la concerné yàlla dafa wax ci alxuraan ana kan mooy dafa man business mhm. dafa yàlla business mhm. loolu duñ ci tayal duñ ci dellu gannaaw ku ñu ci fekk sa bopp nga ñu wal mhm. ku ñu ci fekku tamit ñun ñun ci business la suñu ñu dem ku ñëwul ñu dem maa la wax nañu yàlla jàppal incha allah jàppal na ba pare noonu laa defee <laughs> am na solo isiɗi sefendu fo lanoo jele kaatu yaalong a beteyata fana nimmol ɓe maakoy la mo pota fo amérique a ko naata gambie ɗo ɗon pour que maakoy ninkaro fatantol ɓe gaddomandinla ite yalon e sako malo wo wo seetaye mm-hmm. eh, sa yake jang do yake jantol ɓe gataga ñowma koye fo amancati fana wo mo sifa mo yama koye a comme ya fo ñamen dora ñanta kela wala ñama mm-hmm. ñim ɓe min ke kan amantara ke ka faŋoye de aba ke ka lillahi alale mm-hmm. yo nin ala ba jo ate a min kela ala la nin te be min kela ala bente jola na la ete be min kela ala be jola la la mhm. nin be min kela ala ba te jola la mhm. so nin min bije aman ke ko nin kam eh, mol kana ke nin ne mhm. mol ka ke lillahi ala nin mo mo e transu keje wallahi ala ba afali ne dala soda ni ye dala sike eh, dala a je a fali ne dala si mo la mm -hmm. so mi mala man ke kuti mi yalon ka ko leata an na mhm. nga nyomuta mm -hmm. banku ding i banku ding o nin wo na a e hamo sto ka lafta ka a banko ka he nga mra na be bulo ko ni burba nyanta na la ya fa ko iten la nyin kol kon i fana nyin fela i fana ya kafu nyin kan malon ay e, ayta e mm -hmm. abitala i bajelo ko kafu foundation no futa daminto abu futala do fana sajaya ñaabo fana ya hamu soto pour kake ama yirwa manna yirwa nata foirol te batala mhm. miskinol te batala mm -hmm. silo kan kata sada danola tati be tarre yale na yela fengol be dila mhm. ni yela tendala soto wala yela talul soto ite itan ke na ya tabi dimba ya do me kono fa ni ya do me kono fa hani ma fa baraka mhm. ala be jola bara jola mm. so nyanta nga nyoma koy gambian wol nyanta nyoma koy la ba kel fa ah o nyala o am ami lim wax am na solo kum ne kan bëgg naa xam tamit koom uh, every month ngeen dee daje mm -hmm. def tooga bi mm so dama bëgg xam si juróom benni weer yi wala juróom ñaari weer yi ngeen xam ne mhm. taxawal ngeen ko foundation bi fana fan ngeen dem ak place ngeen dem lan ngeen fa yóbbu oh, every morning ñu doon def mooy dañoo dem si daara yi mhm. dem nañ daara yi nekk Brufut daara yi nekk ah, si burusu bi dem nañ ci biir kaama waaye demagu leen si dex bi yéen a ngi tooloogum si kombo gi ñu ngi war a dem si dex gi na waaw ñu ngi tooloogum ci kombo gi dem nañ lopitaan Banjul RVH Serekunda fii dem nañ si Sandika ci lopitaan bi dem nañ lopitaan yi Brufut waaw dem nañ place yu bari. amin bugga nañoo dem na si dex bi tamit. xam nga moo tax fi mu nekk ñu ngi def member zone gi mu ngi expand because ñu ngi war a def suñu one year celebration bi anniversary bi November 25th. incha allah ñu ngi plan na pour def ko ci stadium bi. Mhm. waaw ñu ngi cee oo ñëpp nag xam naa bu jegee tamit naa la requestaat bu ñu mënee ñëwaat. Ah, waaw waxtaan ci boobu tam ñu ngi koo def. Mhm. Ah, pour xale yi ñëw ñu def daara competition. togga dañoo joxe añ dañoo joxe reer comme al insaan moom ci lekk la ñu xam joxe bu ko dañoo joxe añ joxe reer ñu ngi o sponsor si si boobaa mhm. képp koo xam ne yow euh, fii la ñor na la rek mhm, ah loo ci def ta li de dee wax nit ñi sax ni leen mhm. ñun kaayin moo a gënal cash man nga indil ma maalo indil ma diwlin indil ma li ñu moo ma gënal nga jox ma xaalis wallahi azim noonu laa bëgg sa sañu doolee ko man su ma sañoon bu ñoo bu ñoo dimbali jox leen ñu maalo jox leen ñu diwlin. bu mhm. leen ñu jox xaalis. dëgg la waaw maalo diwlin. bi ko xaalis boobu ngeen di jël dem jëndaat bagage. voilà jox leen ñu maalo jox leen ñu diwlin. Mhm. ñun moo ñu gënal. dëgg la waaw boo leen a ñëw dimbale. Mhm. pour sponsor sax. ñun loolu moo ñu gënal. xaalis bi wallahi azim boo ñu ko gënal. ah ok am na solo il est mu ne fula janni be programme o soronna ah. ila mu yalon ko mama isa il est pour kafo. ah mais Allah foundation foundation oto a ah, min keta fande sono fananti kafumol min bi je lafta pour ye ñomuta nga ñomuta mhm. nga ke kankilinti ñim manke duniya koti ñim mu mhm. lakira kuwolti yo e lakira duniya jan sai ni man lakira dada duniya jan ni de iya e, e, be ke fu fuoti jan mhm. ni da de fentara lakira de yo ka fol fanan mini alon ko inata nan sai ya nga ñomuta mbinga ke hani min binem je kununga nin min nata bi be kilin nga mhm. keten dron mhm. ni nga keten ting bita la bar ni ma keten ni nga keten ti ya musol fana ni siata damin ta ni choko choko buka choko choko bondi kul kono nyim ah. manke eh, ka fudol ti wala manke fenke do nyimu du eh, lakira kul ta mm. manke dunia kul so nga choko choko bondi kul kono mm ni ko ka alale nyene mm. koma kumaro yenyanta ko kato ala nomba wana mala fi koma kumaro nin koma samba mm, asai mm. nga nga focus nkata ah. damen bari la fi fana je ye, na nga demanding jube kato yalo ni mm, eh, ni especially na nata musol mm. koma kumaro itatula <laughs> itaatu tula kadi dool be jee i ka mira itol ye dookuwo pour mm. too koma kumo kumo mm, mm, yaa na saa su ma waxee si olof di nga dégg gis nga jëw dafa nekk loo xam ne day dafay jafe pour ñu génnee ko si doomi aadama yi lii dafa nekk loo xam ne mënuñ koo génnee na si jigéen yi mm-hmm. gis nga mbooloo mooy doole mm-hmm. lépp loo xam ne am na lu la naxari si ab mbootaay boo xam ne yi nanga ko taxawal mm-hmm. balaa ngeen naa dem di ngunu ngunu di kabar kabar. di def ay kafoo kafoo mbootaay mbootaay di wax loo xam ne yéen li tax sax ngeen toog sax xamu leen ko. defe naa ngeen nekk yéen ñëpp benn ku nekk di sànni sa kàddu. because yow am na loo xam ne soo ko waxee rek keneen mun na koo jaar noonu am jël jëlee si njëriñ. waaye bu dee da nga yaakaar ne nga laaxakee na wala keneen laaxakee na. ngeen nekk di wax loo xam ne du yóbbu groupe bi loolu amul benn njëriñ. groupe suñ ko taxawalee ku nekk war ngaa mën a ñëw wax sa xelaat mhm. nga yaakaar ne lii dee bu ñu ko waxee si groupe bi wala bu ñu ko defee si groupe bi mu amal groupe bi njëriñ mhm. dama ne andi loolu noonu mhm. waaye lépp loo xam ne boo ko waxee mu indi féewaloo indi tasaaroo indi bañante kooku danga koy sànni fële indi indi loo xam ne mooy njëriñ askan bi soo jëw bi moom dafa am ñoo xam ne seen deret bi la nekka ñoom ñoom dañoo jëw seen bopp sax waaw dañoo toog sax di jëw seen bopp loolu mënul yàq dafa jëfe dafa jëfe dafa jëfe lingeer dafa jafe gis nga boo boolee mbooloo. Mm-hmm. dafa metti dëgg la parce que ku nekk ak wéeyam xalaatam jikkoom gis-gisam dafa jafe dëgg la mm-hmm. so mooy loo xamante tamit surtout sa mbooloo boo xam ne ku ci nekk muskalaf nga loo leen mën a déedéet mënal loo leen dara waaw yow da ngaa gis waxee nii mm-hmm. kii gisee nii xam nga waaye man àndaa ah, li ma leen de wax rek ne lii ku xool rek ne ba fu mu em rek ku nekk rek sa own interest nga cee bénéfice su fekkee gisee nga noonu dina baax fekkee gisee loo noonu tamit dina baax. Ah, parce que nit ñi moom mënuloo leen nga bëgg a ñu mel lu yàlla amul yonent amu ko yow kana ko a am. déedéet kenn kenn mënu koo <laughs> na loo bëggoon a yokk si mbir mi. ñun moom sunu groupe bi dafa am nu muy demee. parce que soxlawuñ ci dara lu dul diine. dëgg la ñun sunu groupe lépp loo ci wax loo xamante ne dafa génn si li nga xam ne ñun loolu lañ bëgg. Mm. dañ lay supprimer. dëgg la. Mhm. mbiru yàlla la fondation bi ak dimbale jaamu yàlla yi kon ñun soxlawuñ ci musique mhm. soxlawuñ ci yenn affaires yi ku ci am sa affaire diine mhm. mun nga ko cee dugal ku ci am sa wax ju rafet mhm. mun nga ka indi ak sa idée bu rafet mais leneen loo xamante ne da nga koy indi te bokkul ci biir ñun li ñu bëgg ñun dañ koy daal di dindi ci saasi waaw noonu la ñuy def ñun waaye toogagu leen tamit xelaat war a am conférence ak yooyu noonu xam naa bu dee comme ni ma ko waxee ko sax def nañ benn conférence si nañ benn conférence bu kër ga waaw waaw conférence bu mag bu ah. eh, ustaas yi ñëw imaam yi ñëw xale yi ñëw tari mm-hmm. conférence bu neex defoon nañ ko am na solo am na mm-hmm. solo mm-hmm. wax dëgg neex yàlla mbokk yi comme ni leen ko waxee rek programme yi jigéen la ñu am fii Nabou Mbuub ak ki nga xam ne nag mooy Amie Mbuub Thiam Mariama Diba Bojang ñuy waxtaanee nag lu jëm si wàllum foundation bi nga xam ne nag taxawal leen ko ak ndimbal bi nga xam ne nag ñu ngi koy jàppale askan yi nga xam ne nag ñooy ewoo fii nii yii ah, nag bu amee dañuy faral di wax ne liggéey kañ la gars yi di ñëw suñu boor maanaam ci dex bi waaye nag ñu leen di xamal ne macha allah bu loxo àggee gannaaw li nga xam ne naka ñu seen mbootaay bi incha allah dinañ jàlla ñëw ba boor boobu noonu nag am ñi nga xam ne naka dina leen dimbale dina leen dimbale ñi nga xam ne naka yàlla tudd na ne leen su ko defee euh, ami bu dee am na foo xam ne laaloon ko si wàllum seen mbootaay bi rek mun nga koo junjal waa li ñoo wax rek mooy euh, dañoo yaatal dañoo yaatal nu gën a yaatoo rek gën a baax mm-hmm. nagaay ñoo jëna si membas yi na ñëw jënd membership card si. léegi um, su dee am nga QCell line mun nga ñoo jox sa seen line bi in case kuy seetaan bugg a call xam exactly naka lay mun a duggee si seen groupe bi lan mu la uh, war a def su boobaa nga jox ko joxe nomba bi. waaw nomba bi mu ngi nekk 397 07 94 397 07 94. tamit nag may thanks ma nga baala ma lingeer ma thanks suma jabar bu baax moom moo ma toggal Amérique. ok Ramu la Mbuup. Euh, moom moo fa neeka mhm. euh, pour képp koo xamante ne dañ dee bugg a lii si dugal mun nga koo contact nomba mi na maa ko amee xam na after naa ko joxe waaw moom tam mu ngi foofu noonu ñoom tam nañ dee tegantu so loolu la liñ bëgg rek mooy mu gën a yaatu dëgg la na bu yow Gambie fii nga nekk na Sénégal Gambie laa ah, Gambie fii dañ bëgg rek mu yaatu ah. mu yaatu nomba bi ma mm-hmm. joxe nii sànqa mm-hmm. dinañ ko joxe waat ñun ñu ngi ci Facebook bi ah boo demee Facebook bi boo taybee Amie Mboup rek di nga gis Al Insan Foundation boo ko taybee di nga gis because ñu ngi am membership nga yàlla ñu ngi ko run out ñu ngi ko dee boo buggee bokk da ngaa nekk member boo nekkee member rek incha allah fii ñoo joxe di ngeen ci am ok waaw dangaa ngaa nekk member parce que that's the only way we can do it because before ñu ngi ko defoon like lu waay am lu waay am. am mm-hmm. um, dugal. te you know it was not working the way we wanted it. léegi si lañ ne xaaral ñu change ñu defee ko ni. membership yi waa nga xam ne nii dinañ mën a bokk because um, even stadium bi sax li ñoo def ku nekkul member doo mën a dugga. Ah, waaw so nu la boo nekkee bés boobu noonu borom dafay jënd ticket wala. non duñ jënd ticket. ok free la moo nekk fii sa biir laa si la ñoo dox. win sax ñun néew di doole bés boobu ñoom ñoo ko moom. dañoo ñëw hmm. ñu tooga jox leen ñu lekk free. waaye member si tamit dañ leen soxla. because boo nekkee member di ngeen bokk si organisation bi ñu xam ne ñii kat dinañ bokk every month at least buy two hundred sax di ngeen ko dugal. ok so looloo tax ñu bugg a as white as we can. ñun limituñ ken su demee ba nekk ten thousand sax. we mm-hmm. appreciated di because the moment nit yi ñu bokka yi mu mel ni si di gënaal yi because fii moom sponsor gaaw fi waaw fii moom sponsor moom gaaw fi so moo tax ñu jël dat méthode nga xam ne at least lu mu bon bon dina help a little bit nga xam ne di nga ko gën a mun a ubbi waaw am na leneen loo si bëgg a yokkaat a bëgg a liñ ci bëgg a rek du dara lu dul rek di oote comme niñ dee oote all the time na nit yi ñëw na ci NGO si mm-hmm. na ci government jàppa na ci non government jàppa as usual the way we always repeated it all the time mm-hmm. uh, di leen woon ne duñ taay ci di oo ñëpp because ñu ngi taalal suñ loxo pour ñëpp xam nga loo xam ne la daal ndimbal la biir Gambia lañ koo def ah, yóbbuñ ko feneen waaw ah, suñuy mbokk suñuy xarit suñuy dëkkandoon ñu ni neen la voilà soo <laughs> yëf moom fii lañ ko defal am na solo Mariama i lafita mu ne lafala je wolo ñinti ko gambiano le funti ye nga foundation o ñi nga makoye ha fo asitano ñaato lafta e futa damin to e se futa se funtino kata ñoomiwol to kata bolongol kon mhm. Uh, so uh, mbe mba kanne domandin domandin de mm -hmm. ala warta bat ni makoyro fana manke noje mm -hmm. uh, abakole ala pour ngata bolongol kono so mbe mobe killa cew ah, ma so yedu ala fa pour ye futa ah, yedu nga ci <laughs> di gërëm <laughs> waa bi rek képp koo xam ne yaa ngi bokk biir fondation Al Irsan mhm. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci yéen bu baax a mhm. baax a baax affaire bi ak niñ ko téye gis nañ ko. dëgg leen di sant bu baax. Ah, bu dagul dikk mhm. waaw loolu nag wax dëgg la man sax maa war a njëkk a gërëm <laughs> gars yi parce que nag wax dëgg yàlla ñëw oote nii ñu uyu la. Mhm. nga wax ni ñu gëm la. Mhm. ci jamono fi mu toll. nii munoon nañoo xalaatee neneen. waaye wax dëgg yàlla dama ñëw taxawal foundation bi. ñoom ñëpp ñëw toppa suñu gannaaw. nabu daf doon woon di wax te du leen woon sa vidéo. ah dafaa wax rek ñu gëm ko. toppa ko li ma laa wax si jigéen ñi. man all the time maa ngi ma si daayu ma si nëbbu ma si. maa ngi waxee ñoom rek dañ laa dañ mi sax morom mi jigéen mm-hmm. li di yokk rek naam am na jigéen boo xam ne bu jooyee rek morom mi jigéen ko jooy lay dëgg xam ne mm-hmm. daal ci kaw ci kanam am na solo mbokk yi dafa mel ne nag lii la ñuy waxtu mayam ñu leen di gërëm di leen sant si ànd bi nga xam ne saa su nekk yeneen koy ànd ak QTV comme ni ma leen ko waxee woon si njëlbeen amoon neen fi ki nga xam ne nag mooy Nabou Mboup ak ki nga nga xam ne nag mooy Mariama Diba dig daje bu ñu ko laaw buur bi may fekkee saa su nekk dama koy faral di wax du suma kàddu kàddu suñu borom la moo wax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam waxal say soxna ak say jabar maanaam say sori sa waxal say soxna ak say doom ñu hijaab mu doon ay kàddu yoo xam ne nag waxi yàlla la kon nag ñu ngee ñaan yàlla mu jàppale ñu ndax yombul ba dugal ñu su ñi nga xam ne nag dañoo xijaab ak ku munti doon ñu ngee ñaan laaw buur bi yéen a la dugal si xijaab bu dee xijaabu loo jërë ngeen jëf ñu fanaan a jaamaa gis naa acabar.